أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خاص إنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dooli xéewal bi musal ko ba tey ñu ngi àndaat ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala toll ci ala imran tey ñuy jël 48 49 50 51 ñeenti aaya yoo xam ne sunu borom subhanahu wa taala lim ñi ciy jàngal mooy juróom benn mbir sharaful kitaabati wa fadliha mooy ngëneelu bind ak màggaay gi ci nekk bind ngëneel gu rëy la da ngay gis tey ay nit yoo xam ne li ñu am ci àdduna yépp bind moo leen ko may ndax seen loxo ni mu setee ni mu rafetee léeg-léeg nga gis ci doomu aadama yi ku am xam-xam mais mënul bind léeg-léeg nga gis ci nit ñi koo xam ne amul xam-xam mais ak a mën a bind su bindee ba pare dañ koy seetaan kon ngëneelu bind ak xéewal yi ci nekk ak daraja yi ci yàlla maye lool dañ koy jàng tey ci sunu aaya yi nekk sunu kanam ndax Isa bi ko yàlla yónnee bokk na ci yàlla marta yi martaba yi mu ko defal mooy mu nekk bindkat wuuteeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi moom daawul bind umi yi la du bind du liir te moo fi raw ñoo jàngal addina bi allamal mutaallimin loolu la boroom xam-xam yi wax al umyi alladi allamal mutaallimin ki jàngul te jàngal adduna mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaareel mooy fadlul xikma xam-xam boobu ñu naan ak xereñ te yàlla wax subhanahu wa taala wa man yu'til xikmata faqad utiya xayran kasira loolu dañuy jàng xam-xam boobu yàlla may nit ñi xam-xam boobu yàlla may nit ñi te mooy xereñ googu ay ngëneelam te mooy fiq wala nga ni mooy nit xam sekkerey sharia nit dina am xam-xam yenn saa yi waaye du ko mun a jàllale wala nit am xam-xam mais du mun a wax tëju waaye dafa bëri ci ñi yàlla may xikma wax bu gàtt la ñuy wax wax bi ëmb àdduna wax bi day néew lool mais day am njëriñ day am importance ñi yàlla may xikma suñuy wax dañ leen di wër di bind li ñuy wax di ko tasaare ci àddina bi suñu wootee ne dañoo war a wax sax nit ñi dañuy ñëw parce que nit ñi dañuy xam ne ñii njëriñ rek la ñuy génne seen gémmiñ yàlla laaj imam wa hiya al fiqh min asrar ash-shar' wal isaaba fi l umuur mooy mbir yëpp nit ki buñ ko ci laajee mu mën cee tontu loolu mooy xikma dafa jë dafa ëmb fiq ëmb secret sharia ëmb di laaj ñu lay laaj ngay tontu fataawaay ku yàlla defal loolu yow yàlla desalatu la dara ku yàlla may xikma dañuy jàng tey ci sunu aaya yi xikma boobu yàlla daf ko defaloon isa alayhi salaam ñetteel ci li ñuy jëlee ci sunu aaya yi mooy alxal alxaybu lillaahi yàlla rek moo xam kumpa amul benn mbindeef ci kaw suuf bu xam kumpa ku dul yàlla alxaybu lillaahi yàlla rek moo xam kumpa loolu nag dafa war a nekk pas-pasu jullit jullit dafa war a fas ne yàlla rek a xam kumpa waaye bis boo jàppee sa xel wala sa xol wala kenn ci nit ñi xam na kumpa rek yow sa pas-pas wérul kenn xamul kumpa ku dul yàlla subhanahu wa taala moom yàlla wa yuallimu anbiyaahu minhu ma yasha kumpa googu yàlla moo koy neex mu xamal ko lenn ci ay yonentam ku ko neex lu ko neex loolu danañ jàng tey ci sunu aaya yi borom bi subhanahu wa taala kumpa googu mu baaxe ci isa alayhi salaam ba isa di wax nit ñi loo xam ne xamuñu ko te jamono bi mu leen koy wax su leen ko waxee rek mu daal di nekk mu nekk loolu danañ ko jàng mbokk yi tey ci sunu aaya yi insha allah bu soobee yàlla waaye danañ jàng ñeenteel subuutu mujizaatu isa ne isa yàlla mayoon na ko ay kéemtaan ay kéemtaan yooyu dafa sax lu sax la alxuraan moo ko saxal muy def ay kéemtaan yu doy waar te démb am na yu ñu ci waxoon loolu yàlla moo ko defaloon Isa muy def ay kéemtaan di dekkil ku dee di faj ñu feebar di tibb ci suuf si di sànni muy nekk ay picc wala lu demee noonu juróomeel ci li ñuy jàng tey mooy laa ilaha illallah muhammad rasulullah wa isa kalimatullahi wa ruhun minhu wa rasulun ila bani israil tey baatu laa ilaha illallah danañ ko firi danañ firi baatu muhammad rasulullah baatu isa baatu yàlla la ruuxam la bu bàyyee ko ci moom mu def ko yonent yónni ko ci banu israil loolu lenn tey insha allah mbokk yi ci lu nu war a jàng ci aaya yi nekk sunu kanam loolu danañ ko ci gis tey waaye danañ gis ba tey al amru bi taqwa wa taati rasul ci aaya yi ñu war a jël tey dinañ gis ay aaya diñ ci digal ñu war a ragal yàlla topp yonent bi ngir ñu mën a texe ngir sunu ngëm mën a mat ragal yàlla topp yonent bi ngir nu mën a texe ngir sunu ngëm yàlla mën a mat loolu tamit dafa bokk ci lu ñuy jàng tey ci aaya yi nekk sunu kanam kon juróom-benn mbir yooyu moom la ñeenti aaya yi tënk ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dëgëral sunu làmmiñ ba duñu tarxiis di génn aaya yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وأهل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم سنبرم سبحانه وتعالى منه wa yuallimuhumul kitaba man yàlla subhanahu wa taala man maa yónni yónent yàlla isa waaye ma xamal ko nu ñuy bindee borom téere bi nee na ma zaala siyaqul bayaani ma zaala asiyaq fi bayaani xaqiqati isa alayhi salaam وأنه عبد الله ورسوله وليس بابن الله ولا بإله مع الله borom téere bi nee na aaya yi nekk sunu kanam dañul di leeral di faram-fàcce di firi dëgg-dëgg kan mooy Isa alayhi salaam moom Isa nekk gi mu nekk jaamu yàlla ak yonent yàlla yàlla dàq weddi ne Isa du doomam waaye Isa day du yàlla bokkul ak yàlla dara lu dul jaamu yàlla la subhanahu wa taala ba mu nekkee jaamu yàlla ci la ko yàlla defale xéewal wa yuallimuhul kitaaba yàlla xamal ko nu nuy bindee loolu xéewal la ci li ma leen waxoon sànq dafa bokk ci mbir yi wane ne nit am na xam-xam wala nit jàng na wala nit mën na dara mu mën a bind fi mu nekk nii bu ñu la indiloon benn docteur en nangam wala benn professeur en nangam wala benn borom xam-xam ci nangam waaye borom xam-xam boobu de mënul bind maanaam personnalité am day wàcc ci yow loo ko naw naw naw naw naw da nga koy mujj xeeb ndax munta bind wala bind mi dañoo ñaaw moo tax Isa yàlla xamal ko bind wa yuallimuhu yàlla xamal na ko alkitaaba alxat walkitaabata bind nan la ñuy bindee waaye yàlla bokk na ci lim ko defal aussi wal xikmata yàlla may ko ak xereñ xam-xam al ilmu saxiix xam-xam bu wér yàlla may ko Isa al xikma mooy al ilmu saxiix mooy xam-xam bu wér a wér wal isaabata ak yàlla may na isa mu xam sekkerey xam-xam al isaabata fil umur mu xam mbir yépp nu mu ciy duggee nu mu ciy génnee nu mu ciy waxee nu mu ciy jëfee bokk na ci li ko yàlla may mooy fahmi asraari tashrii yàlla comprendre na ko sharia bi mu am ci fahmu dégg-dégg bu xóot bu yaatu bu mat kooku la ko yàlla defal mooy alxikma alxikma mooy nga am xam-xam waaye nga dégg xam-xam bi nga xam place bu nekk loo fay wax loo fay def waaw place bu nekk nga xam lan nga fa war a wax bu fekkee àtte la àtte buñ la jox nga xam noo koy àttee loolu mooy alxikma mooy nga dégg diine ndax am na ñu am ñu jàng diine waaye déggunu ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na rahima allahu imraan samia maqalati fa wa'aha summa addaha kama samiaha fa ruba muballigin aw amina saamii yonent bi nee na yal na yàlla yërëm waa joo xam ne dafa dégg benn wax dafa dégg waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu mokkal wax ci ba mu ko mokkalee mu dem jël wax ji toxal ko yóbbu ko beneen barab yóbbu ko ci ñeneen i nit jàngale ji ko feneen yal na yàlla yërëm ku def loolu waaye yonent bi nee na bëri na kuy jottali wax ña ngay jottali wax ji ñoo la ko gën a dégg bëri na ki jottali wax te yow mi jottali wax ji ñi nga toog di waxal ñoo la gën a dégg li ngay wax yonent yàlla daawud alayhi salaam xam ngeen daawud yonent la woon yàlla jox ko sharia ne ko àtteel nit ñi fàkkum bayna naas bil adl benn bis ay xar dugg ci benn tool lekk tool bi ba mu set borom tool bi yóbbu affaire bi justice ci daawud boobu Souleymane judd na nekk xale bu ndaw fi ñu toog noonu rek borom tool bi ñëw di kalaame si borom xar yi Daawuda ne nañ woo borom xar yi ñu woo ko mu ne ko say xar moo lekk toolu kii ba mu jeex mu ne ko waaw samay xar la de mu ne léegi nag waa ji nee na nga fay ko mu ne awma lu ma ko fay Daawuda ne waa ji jëlal xar yi nga yóbbu ko Souleymane ne ko man bu doon man la duma ko àttee noonu te mooy doom ji ah bu doon yow nooy def mu ne damay wax borom xar yi borom tool bi na jël xar yi jëriñu doom yi war a judduwaat ak meew mi nekk ci xar yi instant bi ma wax borom xar yi mu jël tool bi defaraat ko roose ko ba mel ni meloon mu delloo ko boromam instant yooyu moom muy lijjanti tool bi di ko defar nu mu meloon njëriñ yiy génn fële ci xar yi borom tool bee ko moom mu ne man bu doon man la noonu laa koy attee gis nga xereñ mu ngoog loolu la yàlla ne wa fahamnaha Suleymaan Suleymaan laa comprendre loo atte bi te pourtant kii mooy papa ji kon yàlla mooy def hikma mooy nit am dégg-dégg ci diine alimaam ahmad dafa toog nii rek di waxtaan ak nit ñi rek benn waaye ñëw dafa am nit ñi ci ñoo xam ne ñoom fu ñu dem dañuy wane seen bopp am na ci nit ñi ñoo xam ne fu ñu dem dañuy jéem a daaneel boroom xam-xam bi benn waaye dégg ne góor gi am na xam-xam rek ne kii bàyyi leen ma ak moom naa ko laaj lu mu dul wax mu ñëw fekk sëriñ bi toog rek mu yëkkati loxo bi mu ne sëriñ bi dama am laaj bu ma lay laaj mu ne ko bismillah mu ne ko su may julli xam naa fu may jublu su may jàpp xam naa sama kanam bi fu mu war a jublu su may jàng alxuraan xam naa sama kanam bi fu mu war a jublu su may ñaan xam naa fu ma war a jublu waaye leen rek mooy sama problème bu ma demee géej simmi sama yére dugg ci géej gi di sangu xaw ma sama kanam gi fan laa ko war a jubal sëriñ bi ne ko li gën dey mooy nga jubal ko fi nga summi sa yére balaa ñuy sàcc yére yi nga ñibbee taasu neen Hmm? Hmm? Hmm? li gën mooy boo duggee ci géej gi sangu ngay xoolaale yére yi loolu di moo gën balaa ñuy jël yére yi nga ñibbee yaramu neen lan la yaakaar lañ koy wax keneen ki dafa fekk alaaji Ibu Saaxo kooku moom xam ngeen ci dara muy gàmmu góor gi ne ku fi ñëw rek xam naa lu la fi indi xam nga noonu muy gàmmoo rek di animé ku fi ñëw rek xam naa lu la indi rek benn waay ne ko man lu lu ma fi indi mu ne ko fen loo ma waxul dëgg ah mu ne ko man lu ma fi indi mu ne ko fen loo ma kese bëgg maa fen loo moo la fi indi xam nga ku fi ñëw xam naa loolu indi rek benn waaye ne man lu ma fi indi te ngaa nopp ni sama robi noppee da ko bëgg a fen loo mu ne ko lu ma fi indi mu ne ko fen loo ma waaw loolu mooy xikma xikma dañ la koy may nga mën a tontu bépp wax lépp lu la laaj nga mën ko tontu da ngay dégg diine aussi sooy wax aussi da ngay wax nit ñi lu leen di jëriñ loolu mooy xikma loolu yàlla mayoon na ko yonent yàlla isa waaye wa tawraat yàlla jàngaloon na ko téere bu tudd tawraat te mooy bible wal injil ak téere bu tudd injil tey téere boobu lañ jël dugal ci yeneen leneen leneen leneen ba mu nekk ñu tuddee ko dañu jël injil yi xam ngeen ñeent la tey dafa am Macca am Luc am Jean am Paul moom la ñuy wax injil Yohanna ak Murqat ak yooyu lañ dajale ba mu nekk ñeent ñu boole ko ak ancien testament ak nouveau testament daal di koy def bible benn borom xam-xam bu tudd Ahmed dafay wax ne bu la laajee bible bi waxu yàlla la ne na nga teey bul weddi bul dëggal ndax ci biir bible bi am na waxu yàlla waaye dañ koo rax waaye ba léegi am na waxu yàlla mais dañ koo yokk am yu ñu wàññi ba pare déggoowul bible yi déggoowuñu te benn la woon mais tey six la waaw yooyu la ñu reconnaître six yooyu la ñu reconnaître yeneen yi moom reconnaître ñu leen tawraat téere la bu yàlla subhanahu wa taala joxoon Muusa ca tuuri Sina yàlla nekk leen xuzu ma aataynaakum bi quwa wazkuru ma fiihi laallakum tattaquun jël leen li nekk ci téere bi ngeen jëfe ko ndax ngeen am ragal yàlla wal injil injil téere la bu yàlla joxoon isa alayhi salaam daf ci am yonent yi ñoo xam ne yàlla bi mu leen yónnee da leen jox ay téere am ñu mu jox ay feuilles am ñoo xam ne dafa wax ak ñoom rek ñi yàlla joxoon ay téere nag daf cee bokk Muusa Isa ak Daawud ak Muhammad ñi jàll yàlla joxoon ay këyit daf cee bokk ibrahim inna hada la fi suhufil as-suhuf mooy feuille yi la fi suhufil ula suhufi ibrahima Moussa yàlla mu ngi ko joxoon tawraat Isa yàlla jox ko injil Daawuda yàlla jox ko zabuur muhammad yàlla jox ko alquran ibrahim yàlla jox ko suxuf téere yooyu tamit lan la ñuy wut mooy dañuy jàngal nit ñi lan la wut ci kaw suuf lan la yàlla bëgg ci moom pour ñu àttee woo ko ñu mën koo dund lii lépp yàlla defal na ko isa yàlla xamal na ko nuy bindee yàlla may na ko xam-xamu xikma xereñ yàlla xamal na ko tawraat yàlla xamal na ko injil waaye wa rasulan yàlla tànn na ko def ko ndaw def ko yonent wab asahu rasulan yàlla yónni na ko mu nekk yonent depuis bis bu mu juddoo ci la annonce ne inni abdullah man jaamu yàlla la yàllaa ma tànn yónni ma wa jaalani nabiyan yàlla def ma yonent waaye wa rasulan dafa am ñaari ñaari mbir yu nuroo te bokkuñ dafa am nabi ak mursal kullu mursalun nabi wa laysa kullu nabi mursal képp ku ñu jox mission ne la demal nga wax mission bi yow lañ naan la messager yow yow lañ naan rasul dañ laa dee ba pare yónni la ne la liñ la dee demal nga tasaare ji ko loolu mooy rasul léeg-léeg nag yàlla dina dee nit def ko yónent waaye du ko yónni buñ la doon jox ay misaal ci loolu dañ naan la nuux lan la nuux lan la nabiyen mursal ibrahima lan la nabi mursal muusa lan la nabi mursal isa lan la nabi mursal muhammad lan la nabi mursal muhammad yaquba nag nabi laysa bi mursal nabi kese la nabi xudar xudar borom téere yi dañu dañu werante ci ay mbiram ñi ne yonent la ñi ne du yonent mais lu wér moom te gën a lëng mooy du yonent xudar waaye nitu yàlla la woon ci nit ñu baax ñi la woon xam ne sax ñuy wax ne deewul ba léegi mu ngi ci àdduna bi waaw xam na ñuy wax loolu waaye ku baax la woon daal foofu daal lañ mën a yem ñun ku baax la woon xudar boroom xam-xam yi nag wax nañ ci turam ak luqmaan ne ñooñu yonent lañ wala duñ yonent waaye daal li wér mooy mooy ñaar ñooñ duñu ay yonent ay nit ñu baax lañ woon wala yàlla rekk a xam Isaa moom yàlla bi mu ko defee yónent daf ko yónni rasulan mu ne ku ñu yónni fan lañ ko yónni fan lañ ko yónni ila bani israila mu nekk ndaw lu yàlla yónni ci doomu israélien yi doomu doomu ishaq ak yaqub yi doomu yaqub yi kon ndaw la lu nu yónni gis nga mboolem yónent yàlla di wax ne ñii dañ leen a yónni da ngay fekk yàlla bu waxee seen tur ba pare day wax dëkk bu mu leen yónni wa ila madyana axaahum wa ila madyana axaahum saaliha waa madyan yonent bi tuddoon saalix lañ fa yónni wa ila aad axaahum huud aad yonent bi huut lañ fa yónni noonu la demee luut yàlla yónni ko dëkk bu tudd Sadum ci góor jigéen ña Ibrahima yàlla yónni ko Babil parce que moom da doon toxu fépp la dem Palestine la jógee di wër dem Égypte dem Baytil Maqdis dem Màkk gis nga moom sous région boobu lépp la wër waaw caravane da doon wër rek di dem nekk ndaw kon yonent yaa ngi noonu ñu ci ëpp bu yàlla waxee day wax fa mu leen yónni dëkk yu mu leen yónni ci nit ñooñu Isaa moom yàlla wax na fan la ko yónni ila bani israila ci doomu yaqub yi muy israélien yi kon Isa dégg na ndaw li dégg na yonent gi xam na ne yàlla tànn na ko yàlla yónni na ko kon léegi lu muy def dem moo tax mu ne anni man qad ji'tukum indil naa leen yéen bani israil bi aayatin min rabbikum indil naa leen ay aaya alaamatu dalla ala risalatihi wa siddiqu nubuwatihi indil naa leen ay dalil yu leer nañ ay aaya yuy wone ay kéemtaan yuy wone ne man nii yonent laa yàllaa ma yónni ci yéen ñii waaye xam nga nit ñi dañoo yor aada yor ay melokaan néew na ab yonent bu ñëw ci dëkk ne yàllaa ma yónni rek nit ñi ne waaw dëgg la kay nga ñëw premier jour rek ñu ne dëgg la moom kay foog ñu commencé di la këyitloo di la kawti kawtee ak di la yéej ak di la mokke ak di la saboté loolu nag mooy sunanu laafil ard même ci sunu réew mii sax boo ñëwee ci benn quartier nga commencé xamale diine ngay gis nit ña commencé di saboté ka wax waaw loolu mooy loolu mooy sunanu laafil ard nga ñëw ci dëkk rek ne yàllaa ma yónni rek ñu ne ah kay lu mu wax déedéet mu kay foog ñu commencé di saboteeg di mokkeeg di reetaan ak di xasteeg soo rombee ñu ne commencé boo toogee ñu commencé di piisante waaw déglu leen ko waaw déglu leen ko rek mu ngi ñëw bu ñëwee ngeen déglu ko bu kenn wax nag déglu leen ko rek loolu moom dafa bëri koo romb di ko dégg loolu nag la yàlla bindi àdduna mooy ñu baax ñi moom dañuy bëri ay noon dañuy bëri ñu leen di diingat dañuy bëri ñu leen di saboté dañuy bëri ñu leen di muuboo ko xeeloo ko piis ak di leen wàññi moom Isa wax ne ba mu ñëwee ne leen an nii man mii di Isa di doomu Mariama xat li wóor tey mbir jitukum indil naa leen bi aayatin ci màndarga buy wone ne laanu yàlla yónni te màndarga yooyu sax su ngeen ko xoolee mbaa ngeen dégg ko day dëggal li may wax ne man ndaw laa yàllaa ma yónni wa sidqi nubuwatihi Musaa bi mu ñëwee ci Firawna ne ko yàllaa ma yónni da ko ne lu la yàlla wax yow daal yaa ma jaaxal yow nga nekk xale bu ndaw fii ma yar la ci sama kër gi nga def fi li nga fi def daw tey amoo loo ñëw lu dul naan ma yàllaa ma yónni gis nga Ibrahima moom it noonu lañ ko waxoon Isaa ngi nii tey bi mu leen ne ndaw laa yàllaa ma yónni indi naa leen ay kéemtaan yu bàyyeekoo ci seen boroom bi ayatin min rabbikum yaay ne ko kéemtaani lan la yow laa wax léegi yow luy wane ne yow yàllaa la yónni bismillah Moussa bi ñu ko laajee yat bi la jël sànni ko mu nekk jaan mu jël loxo bi dugal ci poqataan bi génne mu weex tal fa iza hiya bayda lin nazirin su la ko nee nii rek nga sëgg ndax lumière bi dootoo gisati yonent yàlla Muhammad bi mu ñëwee ne yàllaa ma yónni gaay ne ko lu yàlla lan la la yàlla jox mu indi alquran yonent bu nekk bu la yàlla yónnee gaay yi di la laaj yàlla dina la dimbali saalix bi mu ñëwee gaay yi laaj ko kéemtaan gi mu ne wax leen lu ngeen bëgg gaay yi ne ko montagne bii na am doom dina yow ne gaay yi dañoo sadik xoolal montagne waxuñu xar waxuñu gëléem waxuñu montagne na montagne bi jur loolu yomb na yàlla waxoon nañ leen inna allah ala kulli shay'in mu julli ñaar rakk yëkkati loxo bi rek ñu dégg montagne bi onk comme jigéen juy matu jékki-jékki rek xar benn gëléem génn ci gëléem gi tëdd jur doom ñu nekk ñaari gëléem kaay na ko mu ne nag attention yéen yéen a ko laaj yàlla indi ko mais am na charte ñu ne ko luy charte bi mu ne gëléem gi mooy naan tey ci teen bi yéen ngeen woor suba gëléem gi woor yéen ngeen naan gars yi ne ko ah mu ne terminé ndax yéen a ko ñaanoon ñëw na gëléem gi leen nar a indil musiba gis nga moo tax booy laaj dara laajal loo xam ne bu ñëwee nga mun koo dégg ko mais souvent noonu yàlla yeeg yéeféer yi bu ñuy laaj dara duñ def attention dañuy jékki-jékki rek di sànni seen wax ci jaww ji fekk mbiru yàlla du noonu isaa ne leen ñëw naa yonent laa yàllaa ma yónni indil naa leen ay lay yu ne weng yu leer qad jitukum ayatin min rabbikum ñu ne ko yan mooy say kéemtaan yu nga indi mu ne wax leen lu ngeen bëgg ma defar ko léegi gaa yi ne teg mu ne leen anni man mii axluqu lakum min attiini ka hayati tayri su ngeen bëggee mun naa dank ci suuf si léegi benn dank ma ngëb ko ba mu ron ma sànni ko mu nekk picc rek ñu ne ko defaral ñu njugub njugub lan moo tax ñu ne ko defaral ñu njugub parce que njugub moo gën a yéeme ci inaaw inaaw njugub moo ci gën a doy waar njugub du picc bokkul ci nit yi bokkul ci rabu àll yi ah benn njugub daa dee woon ñu dem wooy picc yi kaay leen ngeen sangu seen benn mbokk dee na fee ñu ñëw dugal ko ci morgue bi sangkat bi ne nii gémmiñ ngir gis ay mu ne déedéet kii kii bokkul ci ñu gis nga njugub daa may bëgg ñu wooy nit ñi ñu ne kii seen mbokk la nit ñi ñëw daal di taal ak laa ñu ne déedéet ñu woy rabu àll yi ñu ñëw gis yàpp kese la amul dung ba pare day indisposé ñu ne kii bokkul ci yim dem seen yoon ñu bàyyi ko foofu njugub fu mu bokk xam ngeen lan moo tax ñoom ñu ne ko defaral ñu njugub c'est parce que njugub moo gën a yéeme ci mbindeef yi yàlla bind ci yéeme la bokk bokk na ci kéemtaanam moom yàpp la deret la am yàpp der la dafa am ay laaf waaye laaf yi amul donc laaf yi yàpp la day naaw amul te ñun lu ñu tàmm xam mooy lépp luy naaw da nga am dunq moom nag amul dunq te day naaw ba pare buy am doom du nen day wër nii comme xar mu amee doom comme nit ni muy juddoom day jur di ci deret moom buy jur buy jur njugub du nen ni nit juddoo lay juddoo njugub beneen bi mooy dafa am soow day nàmpal doom ji nii comme nit day nàmpal doom moom du ko sexal comme picc yi nu ñuy sexale seen doom seen bekk déedéet moom bu doom ji bëggee naam da koy nàmpal dafa am soow moom njugub beneen bu gën a gaaw mooy day reetaan day ree ni la nii di la ree génne la bëñ yi day gis mbaax comme jigéen nu muy gisee baax njugub beneen bi mooy jant du ko laal jant du laal njugub mas ngeen gis ndigu bëccëg bu jant bi sowee une heure de temps gis nga ko mu départ jant du ko tiim du dem ci benn dex du naan fii la ko yàlla defal benn dex ci dënn bi foofu lay naan boo gisee fii lay ubbi dënn bi dugal boobu naan ba pare daal di si ba pare daa am benn ba pare dënn bi dafa am ay radar cinquante mètres ci kanam du mbëkk dara nii lay def vif nii lay def nii di fent garab garab ngand ngand mu fent xob yi daf ci naan ko américains yi moom lañ def radar seen kii yi di bopp moom lañ def radar yi moom lañ toppandoo bopp bi gisoo ko bët yi su tollee fii mu ngi commencé bët yi dafa ñëw du mbëkk dara ba guddi lay gis jàng xoolaat ci àdduna jub laa gisoo ko mu ne moom du gis bëccëg bu bëccëgee du gis moo tax guddi heure yi mi ngi ci garab yu lëndëm yi lonk geen gi sëpp bopp bi ci suuf moom du taxaw comme nii déedéet moom day ñëw lonk bopp bi juutal bopp bi lonk geen gi bopp bi ba pare di nelaw su jant bi sawee rek yëg na ko yeewu na moo tax guddi rek ngeen di gis ci garab yi muy naaw wa innama yubsir fi saatayni baada ghurubi shams gis nga bu jant bi sowee deux heures de temps après yeewu na deux heures de temps après rek jógub départ na yeewu na wa baada tulu il fajiri saa suñ jullee fajar ba pare une heure de temps dootu loolu la ko yàlla subhanahu wa taala defal dugub moo tax ñii ñiy falsifié faux billet loolu sax naa ko noppi ndax tam ngi am ko jóge fii di di ko uti xoolal kii nee na jëloon na njugub ba dem suur ko ndax am xaalis kon kay naa ko noppi rek léegi kii moom jë- jotoon naa uti njugub loo doon doyee njugub bi da nga doon xool ah yow defoon nga ko waaw man nag du man nag du ma wax bii ma bëgg a wax bii moom du ma ko wax ko wax de mun leen fexe ba ma wax ko njugub njugub daa bari ay kéemtaan de léegi moo tax ñoom bi Isa commencé wax loolu rek ñu ne ko defaral ñu njugub bu dee da ngay jaay ne mën nga bisimilah defaral njugub muy dank ci suuf si xëcc bopp bi xëcc laa fi su ko sànnee mu naaw ana waa moo tax mu ne an nii man axluqu lakum barakallahu fik min at-tiini ci ban bi ka hay ati tayri lu mel ne jëmm picc gis nga jëmm picc dafa nuroog picc mais du picc jëmmam la yor nag soo ko gisee muy naaw da ngay defe ne picc la ndax yow li nga xataamoon xam mooy picc day naaw mais moom nag moom day naaw sans donc sans donc mu ne bu ma ko defaree ba pare fa anfaxu fiihi dama koy ëf defar na ko ba mu nuroog picc mu ëf ko fayakunu tayran mu nekk luy naaw waaye lan bi iznillahi ci ndigalul yàlla allahu akbar kon kay kii indi na kéemtaan xam ngeen ne dala indiwul ah indi na de loolu nag bokkul ak luxus ndax luxus ak njabar la kii luxus ay jinne lay yónni dem leen place sàngam ngeen sàccal ma fa sàngam wala ngeen dem sama néeg denc naa fa sàngam ngeen indil ma ko mu egsi léegi jinne yi jox ko ko mu daal di na ko nii daal di teg nga koy xoolaat fekk ay jinne la àndal kii def kéemtaan nag moom du yónni benn jinne moom bi iznillah yàlla la àndal day wax ñu indil ko mbir mi mu teg bi iznillah ci kàttanu yàlla lan moo leen di wan ne njabarkat yi ay jinne lañu àndal mooy suratu namli suleymaan suleymaan ba mu soxlaa turonu balqiis bi lan la wax kan ma mu koy indil benn ifrit minal jinn la yàlla wax ifrit ne ko man mun naa ko indi balaa ngay jógaat sa place mu ne ko dafa yéex dafa yéex ngaa yéex yow beneen ponkal jóge si ne ko boo xoolee balaa ngay xef ma indi ko mu ne anam mu ne mi ngi nii xoolal loolu rek diggante xef ak xippi rek mu ne ko mun naa ko diggante xef ak xippi mu ne ko anamu rek mu ne ko mi ngi nii ñu woon ndaw si ne ko xàmme nga sa turun mu ne waa ñu ne ko du bii mu ne ka annahu huwa ah ñu roog naa ngi moom de parce que ba dafa bañ a fen te xoolal distance bi diggante baytul maqdis ak dëkku balxiis kenn xamul ñaata kilomètre la saba waaye loolu moo la wone mbirum jinne la ñooñ dañuy njabar kéemtaan nag ak njabar du benn kéemtaan ci yàlla la bàyyi ko ak njabar seytaane moo la koy defal moo tax na ngeen xàmmee waliyu yàlla yi ak waliyu seytaane yi ndax yàlla dafa am ay waliyu seytaane am ay waliyu ku nekk day wax ak say gaa waaw ku nekk dafa am ay gaam seytaane nag nit ñi nag xàmmeewuñu waliyu yàlla ak waliyu seytaan da ngay gis ne waaye waxoon dañ ne waliyu la weer koor jëm mu yor cigarette di tux man moom weer wi yàlla dem naa ñaari kër fekk fa ay sëriñ sërif ñoo ñu naan sërif ñooñu ngeen di wax sërif weeru koor gi dem naa benn takk buñ ma yabaloon ma dem di takki ba ma demee ci kër ga may takkee fekk naa fa ay shérif yu teg seen baraada di ataaya di tux beneen bi mooy dimanche bi passé conférence bi ma amoon caaroy géej bi ma ñëwee ci kër gi ci conférence bi balaa conférence bi commencé kër gi ñu ma dalaloon maa fekk ay shérif yuy ndékki di tux dañoo tux ba ma daw ndax cigarette bi daf ma sonal kuun bi daf ma sonal ma déplacé wu wala ñooñu ñooñu dañu ne póon bi ci diine bi la bokk póon bi foo gis sërifu naar yi dañuy tux póon ñoom dase dañu ne póon bi ci diine bi la bokk gis ngeen loolu moo lay wan ne ñooñu ay wali yu seytaane lañ képp ku ngeen gis ku ñuy wax nitu yàlla muy naan sàngara muy tux poon wala cigarette muy njaaloo wala muy def yu bon suñ ko nee lii nag ñu ne leer gi la ñuy wàññi am na ñu ne leer gi la ñuy wàññi seen leer daa bari ñuy tux ndax leer gi wàññi wallaay te ñu ne caay caay rek te ñu ne saay saay la moo gën leer yonent yàlla Muhammad amoon na leer wala amul leer ah loolu buñ ko laajee ah waa yéen sama problème mooy bu ñu laajee dara jëm ci yonent bi da ngeen ne kenn du wax lu tax yonent bi amoon na leer wala amul leer loolu tax di ko war a liir kan moo ci am leer ku ëpp yonent bi waaw yonent bi leer mu soo wàññi ne xaaral ma dugg xaaral ma naan ndax sama leer wàññeeku Abubakar Siddiq amoon na leer wala amul leer xoola Ousmane nan lañ ko tuddee woon zu nuurayni borom ñaari leer yi xam nga fu mu jëlee ñaari leer yi ñaari doomu yonent bi la takk moo tax mu am leer kon yonent bi leeroon na mais mosuñoo dégg ñu ne dañ koy wàññi nga gis fi benn waaye ñu ne muy naan sàngara ñu ne ah waaye leer gi lay wàññi quoi leer gi leer gi a bari Sénégal a neex rek fan nga bëree leer ba koy wàññi yow lan nga def ba sa leer bari da ngaa julli da ngaa woor ñaari at da ngaa woor deux ñaari at da ngaa woor dangay wàcc ay kaamil bis bu nekk leer gi bari bari bay la kaani léegi bu leer gi bari bari nga wàññi foog nga tux yàmba foog nga naan sàngara foog nga njaaloo dama ne dañ ñuy nax rek léeg-léeg nga gis ku ne ku ci ne non boo ko gisee muy naan moom sàngara nga gis mais balaa muy egg ci put gi mu soppi ko meew wala yàmbaa bi da koy def cuuraayu màkk te ñoo bàyyi màkk ñoo beneen dëkk ba burul màkk yooyu ay mbiru seytaane la wali yu yàlla du def lu bon wali yu yàlla du def lu bon du lekk lu bon du sol lu bon du dem fu bon du wax lu bon bu fekkee waa ji dañ ne wala yu yàlla la nga gis ko ci place bu bon nga gis ko ci baar bu yeboo nga xam ne wala yu seytaane la àndatul ak yàlla dara histoire yonent yeeg saxaaba yeeg nit ñu baax ñi kan ngeen ci gis ne ñu ne leeram daa bëri ba da koy wàññi kan wax leen ma kan la ñépp ñi ngeen di jàng ñu ne amoon nañu leer di def lu bon ay wali yu seytaane lañ ak ku mu mën a doon nag fii may wax ak yéen bu seen xel demee ci kooku rek kooku wali yu seytaane la ak ku sa xel dem nag kooku ngay xalaat rek wali yu seytaane la waaw kooku ngay xalaat kooku wali yu seytaane la bu dee day woor di def lu bon wala muy nekk jullit di def lu bon di ko layee ne day wàññi day wàññi martaba bi martaba bee bëri loolu ab jullit war naa sori melokaan yu mel noonu ak mbir yu mel noonu doomu ndey yi mbokk yi isaa nee na leen danaa leen defaral jëmmu picc jëmm luy naaw su ma ci ëfee day nekk njanaaw njanaaw mooy luy naaw waaye waaye bi iznillah lii lay woon ne moom du yàlla bu doon moom yàlla danaan bi izni waaye mu ne bi iznillah moo lay wan ne moom du yàlla nit ñi bañ ne Isa yàlla la yaayam yàlla la xam nga lu leen yàlla wax xanaa xoowu leen Isa ak yaayam kaana yaakulaani taam ñoom dañuy lekk ñam dañuy lekk ñam boo xëddee yaasa wala nga xëddee ginaar ba sa biir fees nga teg ci kaasu café libaru mburu teg ci ñaari kaasu ndox kañ nga ban heure nga lekkoon loolu ah cinq heures ci guddi ban heure moo ci tegu ah six heures ban heure ban heure ban heure ban heure sa biir bi commencé nu muy def grrr grrr grrr après après foo ñëm moo tax yàlla ne kon duñ yàlla xoolal ñoom yàlla fii daf ñuy jàngal teggin ndax ñii ñaar dañoo màgg Isa dafa màgg yaayam Maryam dafa màgg yàlla de xanaa xoolu leen ñoom ñaar dañuy lekk suñ la nee diw day lekk kan ko de omo ñaama sa ñaami ha reeduma heewi hoto wattinta soo lekkee ba sa biir fees yàlla nag bul xëdden cere baase nga reere ko xëdde ko bu am ñebbe bu bëri ak tiga dege après kon kay xam nga ne yow doo yàlla kon xam nga ne kon doo yàlla léegi nag yàlla lu tax mu waxee nii mooy dafay tegginal ndax ni ñuy wax kilifa lañ moo tax yàlla ne kon duñu yàlla moo tax dañuy lekk suñ la nee waa ji koo gis muy lekk rek war ngaa xam ne am na benn mbir boo xam ne moom kese moom dañ ko wéet buñ ko defaralee néegam lu mu néeg bi rafet rafet ci biir néeg bi dina am beneen néeg wala kër goo dem fekk fa néeg boobu mooy wan ne ñii du ñu yàlla suñ ne waa ji yàlla la diw yàlla la nit ñi xam nga lu ñu war a xool ndax moom ndax dina ndékki ndax dina añ ndax dina reer ndax dina xëdd ndax dina ndogu boo ñëwee fekk mu yor mburu ak tàndarma rek war nga xam ne kii du yàlla yàlla nag du lekk yàlla du naan koo gis muy lekk di naan résultat bi mooy néeg boobu ma lay wax il faut mu am audience ay waxtu yu mu fay dem ay minute ay heure mu jël audience dugg foofu néeg boobu nag fépp la nekk néeg boobu mooy wane ne du ngeen yàlla néeg boobu mooy wane ne yéen du ngeen yàlla ndax da ngeen di lekk da ngeen di naan amoon na benn waay bu doon wër Afrique ñu ne du lekk fu ne lu muy wër gars yi yëpp def seetaan ñu ne du lekk du lekk du lekk loolu ay wax la doo lekk nga am gémmiñ am bii am ñaari awra bii ci kaw bii ci suuf ñu ne doo lekk du dëgg gémmiñ gi lu tax ñu defal la ko bëñ yi lu ñu fi wut bëñ yi pour naa la pour dagg yàpp ñu ne doo lekk ku lu mu fi wut loolu loolu ay caaxaan la laa wax doo lekk ay caaxaan la ñëpp ay lekk ñëpp dañuy lekk yàlla moo dul lekk subhanahu wa taala ak malaakaam yi parce que noonu la leen bindee moom yàlla amma ku dul moom rek da ngay lekk di naan waaw ndax lekk ak naan gàcce la ah du gàcce kon lu tax nit bëgg a yëkkati martabaam ba ba tere boppam loolu ah moo tax yàlla bi muy wax ne Isa ak yaayam du ñu yàlla daf ne ñoom ñaar de dañuy lekk lekk Isa ne gaa yi yamuma rek ci di leen defal ay njanaaw yuy naaw yu yor jëmmu picc waaye wa ubri u damay wéral al akmaha ndeysaan al akmah mooy allazi wulida ama mooy ku judd rek daa di silmaxa daa di gumba wa ubri u damay wéral damay faj al ak maha mooy ku silmaxa ku dul gis ku pat wal abras ak ku ràmm ràmm mooy koo xam ne feebar boo xam ne démb ak tey docteur yi mënuñ ci dara ràmm ku ràmm daram bi nu muy mel day weex bu ko xoosee mu naaj dagg tuñ yi day dagg kawar gi day dañ si yéen yi sax kawar gi day dañ tuñ yi xotteeku tànk yi xotteeku loxo yi day xotteeku ndax yaram bi dafa ràmm loolu mooy al abras mooy ku ràmm isaane lii yëpp dama koy faj te moom boo ñëwee du la bindal ordonnance de du la jox garab da lay raay nga wér allahu akbar moo la ñu tudde ko almasih su la raayee nga wér ah mema salla naam mema salla so mimi matan asallat wa ubri u damay faj al akmaha mooy ku silmaxa wal abras ak ku ràmm waaye am na beneen de ñu ne ko lan mu ne wa uhil mawta damay dekkil ñi dee aw kii nag mooy docteur waaw yéen waa Sénégal am ngeen docteur bu mel nii yaakaar naa sunu docteur yi lu ñuy kannasu kannasu nag ci lu ñu yem faj kese nag pikiir la jéem laa sauvé rëccalaat la waaye nga dee ba pare ba ñu dugal ci morgue bi docteur bi ñëw bañ nañ ko sax ba dafa am benn proverbe bu ñuy wax ñu ne am na benn gox wax bu tubaab yi wax déedéet médecin après lu docteur bi jëriñ après bu dee ñëwee ñu bàyyi ba waa ji dee ñu ne dem leen ngeen woy docteur bi docteur bi xam nga bu ñëwee lu muy wax ça y est ñu ne ah mu ne ça y est ça y est ñu ne ah min na naa ni déggunu ko ko wi lu mu wax kan ko dee wi ça y est jeex na mooy pare na kii moom keneen la ñuy waxati waaye pare na ndeysaan ndeysaan moom la yàlla naan bu nit nekkee ci sukuraat yàlla day yónni malaaka yi ñu xëcc ruuwaa ji ba ci bóli gi fii yàlla ne fa lawla ida balagatil xulquuma wa antum hiina idin tanzuruun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin yàlla nee na giñ naa ci sama màggaay bu ñu xëccee ruu gi bu ma yónnee sama gaay ñu xëcc ruu gi ba ci déndi baat yi fii ci bulu gi nee na nit ñëpp jege ko ku nekk di wax xamuñu ne man yàlla maa ko gën a jege man ak samay gaa waaye gisuñu nu ki laa tubsirun gisu leen malaaka yaa ngi ni toog ci bopp waa ji ndeysaan nga dégg nit ñi ñu naan man raaq ay waaye ku koy mocc man raaq kuy passé visite kuy bindu ordonnance ñoo dem leen ngeen woy docteur bi ñu jël oto bi daw ñëw mu jëmu takk affaire yi écouteurs yi teg ci dënn bi waaw jël station bi teg pompé ah génn benn ordonnance bind kayit yàlla mu ne ko yaa mën a fen kii wa zanna annahul firaaq leer la ko ne du delluwaat àdduna kii tëdd fi yow xam nga loolu ñu ne kon dem leen ngeen woo imaam ñu woo imaam imaam ñëw jël loxo bi teg ci jëbi qul allahu allahu samad lam yalid walam yulam qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas allahu la ilaha yàlla mu ne ko imaam ragalal yàlla ah imaam xam nga ne kii wa zanna annahul firaaq li nga jàng nii xam nga ne amul benn njëriñ kii xam na ne dootu lekk ceeb lu ñu yëg mooy wal tafati saaqu bi saaq bu njëkkatee loxo bi mu ne mu daanu njëkkati tànk tànk bi daanu yi dee na moo tax bu njëkkatee dootul taxaw day daanu ñu ne yàlla waa ji fu mu jëm mu ne ila rabbika yawma izil masaaq allahu akbar te yàlla rek yàlla rek moo tax gis na ñaata nit sa mbokk boo dem jëndali ordonnance balaa ngay ñëwaat fekk mu dee li waa ji naan fa kam min maridin utna wa ma utna fa kam min malikin rufiat lahu alaamaat fa lamma alaamaat allahu akbar فكم من قبور تبنى وما تبنى فكم من مريض أتنى وما أتنى فكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات من نياتا بامل لن توقت توبني فكم من قبور تبنى نياتا بامل لن تبخ te wama tub naa te tuubuñu gis nga baaji ni mu àndee moo tax boo ko bëggee wax ci olof du neex fa kam min quburin tub na ñaata bàmmeel lañ tabax te tuubuñu wa maa tub na fa kam min maridin ut na wa maa ut na ñaata nit nga dem seetu yu feebar delluwaatoo li nga demee rek delluwaatoo ndax balaa ngay delluwaat ñu ne la bien benn xale bu jigéen dafa musa woo téléphone mu ne ma dama feebar ma ne ko foo nekk mu ne ma maa ngi principal ma ne ko dinaa la seet mu ne ma déedéet ñaanal ma rek ma ne ko waaw mais dinaa la ñaanal mais dinaa la seet seen mbokk bi laas lundi la ma woo mardi ma ma bëgg ko nuyu ji ma am problème mënuma dem ma woo ko mercredi jot boîte vocale xamatuma nu may def pour pour nuyu ji ko ay mercredi ci ngoon ñu ne ma ci ay ñu ne ma dee na gis nga ndeke ma ko woowee jot boîte vocale rek boobu la dee looloo tax su la nit ne dama feebar wala nangam nangam bul bul yéex bul yéex boo waree seeti ku feebar bul yéex bul waaj boo moytuwul rek da ngay am gàcc gis naa benn ñaar ñuy sëy ñu bokk jëkkër ay wujj ñu nekk ci kër gi ñoom ñaar ñu jàppante aaw bi ak ñaareel bi ñaareel bi dem ñibbi seen kër feebar ñu ne awa bi ñaareel bi dafa feebar de mu ne ah sama yoon nekk ci ndax bi muy jógee fii dañoo xuloo woon ñu teg ci ay fan rek ndaw si dee comme bi mu feebaree ziyaare ji ko woon mu ne xaar ma jaare ji mu jël yaayam dañoo wàcc ci oto rek waa dëj bi yuuxu leen bu leen fi yegsi de bu leen fi yegsi ba muy dund ñëwu leen woon seet ko ngeen bàyyi ba mu dee ngeen naan da ngeen di ñëw gis moo tax bul waaj même boo amee nit ki problème boo déggee feebar na wa nga seeti ko rek même boo ñëwee mu bañ naa sa waa sax defal sa wàll beneen bi mooy jullit du denc mer jullit du denc mer buñ la tooñee ak boo tooñee yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ki gën ci ñaar ñi meroo mooy ki bale doonte ne moom lañ tooñ mu ne ñoom ñaar ki ci gën mooy ki njëkk a dem ci mbokkam boobu ne ko salaamaaleykum baal ma wax doonte ne yow lañ tooñ parce que jullit du denc mer tey nag da ngay gis koo xam ne kii su ma kon su ma naree waxateeg moom yàlla na ma yàlla lakk bul wax lu mel noonu loolu bul ko def bul topp seytaane seytaane li mu gën a bëgg ci àdduna mooy tàqale ñaari nit seytaane bu xëyee suba danaan mbokk doomam yi kaay leen kaay loxo ma li ngeen def nga gis ku ñëw ne daaneel naa avion mu ne ko defoo dara ñoom ñëpp dugg nañu àjjana parce que dañoo sahid lawal naa bato mu ne ko yow dafa tus yow ñoo ñëpp dugg nañ àjjana ki mu ne daaneel naa benn miir ci benn waay mu ne ko dugg na àjjana dafa shahid damaa fekk oto bi daw ma këpp ko mu ne ko ñoo ñëpp dugg nañ àjjana kenn ne damaa fekk ñaar ñuy ànd ma takkale leen mu ne ko jege sil jege sil mu jege si mu jël kaala daal di koy kaala takkal ko garaat ne ko yow yaay liggéeykat bi yow yaay liggéey gis nga seytaane ñaar ñuy ànd bugg ko kon nañ def nañu moytandiku di ànd ak sunuy mbokk wala sunuy soxna wala sunuy doom wala sunuy xarit wala sunuy soppe seytaane daal di jaar suñu diggante ak ñoom ba ñu bàyyi leen soo leen rombee sax day mel ne xamoo kii te yenn saa yi nga gis ñaar ñi fi ñuy eggoon ci lu nekk mais seytaane fexe ba ñu bañante loolu musiba la yàlla na ci yàlla musal mu ne wa uhidal mawta damay dekk ñi dee yaakaar nag ne li moom kontaanu yàlla rek fii la mën a yem yàlla may la nga nekk yonentam ba pare ngay dekkil ñu dee ñu ne waaw Isaa moom ñan la masa dekkil ci ñu siiw ci waa banu Israil boroom xam-xam yi ne leen rawa annahu moom isa ahya lahum arbaa dekkil na leen ñeent ñoo xam ne dañoo siiwoon ci jamono ñu dee isa dekkil leen sam ibnu nuux dee na isa dekkil ko sam doomu nuux isa dekkil na ko xam ngeen sam doomu nuux nuux ak isa ñaata la gaa yi daal demoon ko bàmmeelu doomu nu ne ko kii mooy saam dekkil ko mu dekkil ko bi isnillah saam foo nekk mu ne ko maa ngi mu ne ko jógal mu jóg taxaw waaw dekkil na al azra wa kaana sadiqan lahu benn xaritam boo xam ne dafa toog rek këram ñëw di ñëw mu ne leen lan la ñu ne ko al azar moo gaañu mu ñëw fekk ko mu tëdd ñu sàng ko mu ne ko jógal mu jóg bi iznillah mu jóg taxaw ñu ne kan la dekkilaat ñu ne ibnul ajuz doomu màgget bi benn màgget bu jigéen bu amoon doom moom kenn doom ji dee ndaw si triste ñëw ci moom di ko ñaan di toroxlu ci yàlla di ko ñaan mu ñëw daal di dekkil xale ba wabnul ashir ak ki amoon fukki at daal di faatu isaa ñëw fekk mu tëdd mu ne ko jógal mu jóg dekkil na ñeenti nit ñi ci jamonoom ñoo xam ne ñépp xam nañ leen li ci gën a garaaw nag mooy saam doomu noor mu ne yamul rek ci di dekkil ñu dee moom isa waaye wa unabbiukum bi ma taakuluun dinaa leen wax sax lu ngeen di lekk da ngay ñëw mu ne la yow xam naa loo xëddee nga ne ko la la mu wax la ko kii ñëw mu ne ko xam naa yow loo reere kii ñëw mu wax lu mu añee démb kii ñëw mu wax lu mu ndékkee duñ ci yam danaa la waa des na sax desal nga ci njoganal sax nag mën nga dee wa ma tadaxirun ak li ngeen denc wala mu ne leen la ngeen denc ci kër nangam la yéen seen saaku ceeb bi tuutee ci des xam naa ne suba moom ngeen boo naan du ngeen du ngeen xëdd fonde ngeen di xëdd parce que seen ceeb bi jeex na gis nga yemul di wax nit ñi moo tax mu ñëw ci kër daan ànd ak xale yi xale yi di foy mu ñëw rek nit ñi di ko commencé daw ñu téye seen doom yi benn kër goo xam ne dañoo ñëw tëj xale ci benn néeg ñoo ne maire ana xale yi dama bëgg a ànd ak ñoom fooy ñu ne ko xale yi nekk ñu fi acca mu dégg xale yi di nga lu nekk bi ñu ne ko mbaam xuux yi mu ne yàlla def na ko de ñu ubbi fekk ñëpp nekk ay mbaam xuux waaw nappkat yi di nappi amuñu jën mu jël mbaal mi sànni ko ci géej gi ne leen xëcc leen ñu xëcc mu fees del ku xuugee bu la jàppee raay la boos bi dañ boo silmaxaa taf li yëpp tafu bu la raayee lépp ñëwaat bi gaa yi gisee loolu nag ñu kon réer jàdd ñu ne kii kii am na lu mu bokk ak yàlla kii sa sirka doomu yàlla la fekk lépp bu mu ko doon def mu ngi wax moom iznillah allahu akbar mu ne wa unabbiukum dinaa leen xabaar dee leen bi ma taakuluuna ci li ngeen di lekk tey ak suba ak ginnaaw suba ci ba weer bi dee boo ñëwee dinaa la wax loo lekkoon wa ma tadaxiruuna ak lu ngeen denc ci biir kër yi nga xam ne lekk boobu sawaay yi ngeen koy waajal a lekk taxbasuunahu wa tuxfuunahu min atfaalikum min attaami wa gayrihi li nga jël sax nëbbu ko sa waa kër denc ko ci ronlal bi potu saar yooyu nga denc nëbbu ko nga bàyyi ba guddi guddi guddi yow nga nga nga toog di ko lekk dina bu xale yi ñëw mën leen seen pap bu ngeen demee ci ronlal bi denc na fa mango denc na fa jardin denc na fa benn butel boisson li ngeen denc nëbbu ko di ko nëbbu xale yi su ngeen ñëw allahu akbar lii de ké ku ne lii nag ku mu doyul kéemtaan lu lay doy moo tax bi mu ñëwee lan la leen wax dinaa leen woon ay kéemtaan yoo xam ne day wan ne man mii yonent laa yàllaa ma yóbbu yii ñu wax nii doy na kéemtaan wala doy waxoon na leen lan anni jitukum bi ayatin min rabbikum indil naa leen kéemtaan yu jóge ci seen borom kéemtaan yoo xam ne ku ci teg bët dina xam ne man yonent laa yàllaa ma yónne lii nii yaakaar naa doy na de ñaareel waaye lii yëpp ma leen wax li mu leen wax lan la damay defar su ma ko sànnee mu naaw te ci suuf si laa koy defaree damay wéral ku silmaxa di wéral ku ràmm di dekkil ku dee di leen xabaar li ngeen di lekk ak li ngeen denc waaye lii lépp ci seen biir kër yi wa ma tadaxiruuna fi buyutikum lii lépp inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin inna fi zalika nekk na ci lii la aaya ay kéemtaan yuy wane ne yàlla rek rek rek lañu war a gëm la ayatan lakum kéemtaan yuy wane ne yéen ñii yàlla rek ngeen war a gëm in kuntum muminin bu fekkee gëm ngeen yàlla ku gëm yàlla bu gisee kéemtaan day nangu ñun nag léeg-léeg kéemtaan yi danaan weng sunu kanam ci sunu bët waaye duñu ko gis waaye ma ne xaw xool asamaan bi doy na kéemtaan wala mais lan moo tax asamaan du kéemtaan tey ku xool asamaan doo waaru lu tax te tey boo duggoon benn benn néeg rek nga gis benn waay benn peintre bu jël tableau bu weex tal daal di dessiner asamaan si defar biddéew yi defar weer yi posé ko taxaw di ko jaay nga gis nit ñi di ko jënd ñaata ñaata ay millions ni sax jënd naa ko un million ñu ne kenn deux millions kenn trois millions waa jooju lan moo ko yéem ci tableau bi ba mu koy jënd non xool asamaan si nu mu rafetee xoolal univers bi non xoolal waaw yow kay yow tableau bi nga gis dañ koo dessiné yow mi gis affaire bi bu ne weng bi nag nga dem géej waa ji desil leen la géej gi desil leen la asamaan si géej gi fi ñuy laalante asamaan si géej dañuy laalante ne ah ah du ñu laalante ah kay dañuy laalante boo taxawee fële nga gis asamaan si wàcc fële koy laal loolu lañ daan horizon ufuq da nga yaakaar ne asamaan si ak suuf si dañoo laalante foofu ak ndox mi pour yow asamaan bi dafa wàcc ku la ko dessiné defaral la ay gaal ay bateau ci géej gi ñu teg tableau bi nga gis waa ji di jël te yow yaa ngi taxaw ci tefes gi di gis loolu waaruwoo sujootoo sa xel delluwul ci yàlla nga gis tableau bi mu jaral la ay millions bàyyil géej gi bàyyil asamaan si ñëwal ci garab yi nga gis waa ji dessiné la ay garab ndox di wàcc ci montagne yi yenn saa yi sax mu nekk benn photo boo xam dañ koy jël cadre ko cadre bu rëy di ko jaay ñëpp di ko jënd te yow bi nga taxawee di jënd waaw juralu la dara boobu sax dafa sori nag ndax yàlla indi lañu kéem daan boo xam ne buñ ko xoolee dañu war a xam ne mooy yàlla te bis bu nekk ñu koy gis te yokkul lu yokk yokkul sunu imaan mooy la wa fi anfusikum afala tubsirun xanaa yéen xool leen seen bopp seen bopp xool leen seen bopp suñu suñu jógee tafsir ku nekk da nga dem seen armoire lu kër sa armoire lu soxna ñi amul soxna ngeen dem seen armoire lu mama yi ngeen xool seen bopp nga taxaw nga xool sa bopp ci kaw ba ci nga xool sa bopp nga xool benn place rek léegi loo xam ne rek war nañ ko fee dindi tàmbali ci bopp bi nga xool kawar gi ndax mënoon nañu koy dindi def ko feneen nga xool sa nopp yi nga xool sa bët yi nga xool sa bakkan yi nga xool sa gémmiñ gi nga xool lépp sa ngay wax est-ce que man sama gémmiñ gi bu ñu ko defoon ci ginnaaw wala ñu def ko côté bi sama leex bi wala sama bët yi ñu def ko fii ci sama jë bi est-ce que du ma gën a rafet wala sama bakkan bi ñu dindi ko ñu def ko benn pax kese ci biir pax kon dinaa gën a rafet boo taxawee ci seetu di xool sa bopp lan nga fay changer looy wax ne li warul woon nekk fii lan wax leen ma leen na ma kenn wax benn rek boo xam ne waroon nañu ko changer warul nekk fi mu nekk xanaa kenn ne nopp yi nopp yi noonu nopp moom fan lañ ko waroon def sax est-ce que duñ ko def ci poqotaan kon doo dégg di bët bu ñu ko defee feneen fu dul fii doo gis di xoolal yi nga xam ne daf lay daf lay topp ci sa dund yàlla sax doo doo ko sox solal yére doo ko sàng bal sax dañ ne du awra wala bët imagine bët bu ñu ko doon wutal yére doo jëm ñu defal la fi ñaari bën bën ku la romb ku la romb nga naan waan kii kan la xoolal bakkan xoolal gémmiñ fekkoon dafa am fermeture balaa ngay lekk da ngay ubbi ba pare dugal ubaat boo buggee wax nga ubbi boo waxee ba pare nga tëjaat xool yëpp bët booy xool doo sax sonn da nga yendoo xool suba ngoon amul coono nopp nga yendoo déglu ñaataat nga am 23 ans yaa ngi déglu sonn yaa ngi xool sonn yaa ngi noyyi sonn yaa ngi wax sonn wala gis nga yàlla allahu akbar jalla jalaalu loolu xoolal te jurul kéemtaan kenn du waaru te yàlla wax na ne xool leen seen bopp de bu ngeen xoolee seen bopp rek ngeen waaru xool leen seen bopp balaa ngeen di xool leen pour waaru xanaa gisu leen seen bopp bu fi anfusikum afalaa tubsiruun xanaa gisu leen sanuriikum ayatina fi afaq hatta yatabayyana lakum annahu alhaq yàlla nee ne dinaa leen won sama kéemtaan yi ba ci origine yi su ngeen xoolee bu baax a baax a baax ngeen xam ne man yàlla maay dëgg allahu akbar waaye kenn du gis loolu daf laa jege lu la jege doo ko gis lu la jege doo ko gis yàlla daf ñoo jege ba mu ëpp moo tax duñ ko gis duñ gis kéemtaanam yi mu def ci ñun parce que daf ñoo jege huwa aqrabu ilaykum min hablil warid yàlla nee na buum bi indi oxygène diggante sa poumon yi ak bakkan bi lii xëcc ci ngelaw li di ñëw di dugg di ko dugal ci poumon yi di ko génne man yàlla maa la ko gën a jege kon yàlla nan la ñu jege wala duñ gis yàlla te buñ xooloon suñu bopp rek gis yàlla allahu akbar xoolal sa nopp yi rek yaa ngi dégg lan moo tax li may wax neex ndeysaan démb démb damaa nekk benn ngénte benn waaye di wax ko caag benn paaj ñëw jege si jege si jege si ñu ne ko ah an mu ne mi nanaani mi nanaani ko haalda ko jenno hono ko gotal ne dil ɗum tagi ɓadi moomi ndeysan mane allahu acbar mune joni jiyanmi ko seeɗa mi nanata allahu acbar wallahi bo yagge dundu foofu nga jom nangu nañ ko mu ne léegi déggatuma foog ma jege la bu baax ma doog a dégg léegi sax tuuti la gis nga bët bii gisatul bii moom dina gis tuuti nopp yi moom foog ma jege la ma doog a dégg foofu nga foofu nga jëm ah da nga daan nekk di gis loo xam ne mu ngi nekk quatre-vingt-dix mètres nga koy gis lu sëqat nga dégg nga mujj naan ah nga mujj dootoo gis dootoo il faut léegi nga takk verre xool pour nga gis te bu njëkk ba. puso sax da nga koy nas guddi puso ñun biñ nekkee xale di jàng suñu daara suñu sëriñ ne nas leen puso moom bu jàppee puso bi naan nii puso bi di fente ñu dañuy ree di bërigu ñu defa ne ñu defa ne moom du lu gis bën bën quoi ndeke allahu akbar boo xamoo waaye instant bi boo toogee ba instant moom nag yow dem léegi nga bëgg a nas nag mën a doon nga woo sa doom nga naan nii puso bi di fente nga defa ne dugg na ngay nga ñëwaat nga indi mu romb waaw yéen du ngeen ma dimbali ci puso bi nga dégg benn booy ni la waa indi indi noonu la mu ngi nii nga nga commencé xam yàlla dalaa abar rek da koy nangu bu yàggee nopp yi nii muy déggee bu yàggee dañ koy nangu bët yaa ngi gis am na am na ku toog naa nu waaye ban nangu lii kenn dañ koy nangoo waaw ba demal loolu laa doon wax te tey toll naa ci demal ndeysaan par tuuti nga commencé gis-gis gi di wàññeeku dégg-dégg di wàññeeku bëñ ñi di commencé di deñ kawar gi dafa ñuuloon commencé weex damay gis léegi ay boy yu toll nii naan eh pa eh pa ma ne ah ah li la wax grand ba ci yàgg ñu naan la pa ba ci kon kay xam nga ne yow léegi nga pare ndeysaan léegi nga pare da ngay bañ bañ rek di entraînement di jéem a kii di ndeke dara pare nga mais da ngay dem rek waaye doomu aadama moo bëggut a dee te yooyu nag daf lay won ne yaa ngi jege dee ndeysaan yaa ngi dem waaw yow kenn la woon cundum nga jékki-jékki takk soxna jékki-jékki am doom nga jékki-jékki nga sol dàll nga simmi dàll bi sa doom ñëw ne la mais pa pa mais mais mais dàll bi jox ma ko xoolal këj la ma def këj bu yow nga xoolaat sa bopp nga simmi mbubb mi mu ñëw sol ne la mais mais père ñu xool yére bi war ngaa xoolaat sa bopp boo demee ba sa sa mbubb nag jot sa doom nag sa musóor jot sa doom sa daala jot sa doom li nga doon def yëpp sa doom di ko def léegi sax nga toog di ko yónni muy dem di ko def ah jegeel jegeel jegeel kurus geeg der beeg kaamil bi waaw jéem a la jege yàlla nag jéem a la dëpp nag jéem a bëri loo naafi la guddi jéem a bëri jàngal Qur'an jéem a sikkar jéem a saraxe jéem a topp yàlla te xam ne yaa ngi jege si waaw yaa ngi ci ligne droite bi waaw yaa ngi ci virage bi waaw yaa ngi ci de yaa ngi ci virage bi ndeysaan afdalu zikri afdalu zikri su ko defee mu ne inna fi zalika nekk na ci lii ma leen di wax la aayatan kiimtaan buy wane ne man yonent laa yàllaa ma yónni ci yéen lakum in kuntum mu'minin bu fekkee gëm ngeen gis nga alxuraan daa bari lu muy wax su waxee ba daaneel rek mu pose question bu fekkee gëm ngeen yàlla wa alallaahi fal yatawakkalu in kuntum muminin in kuntum muminin in xarfu lan la in xarfu sart la mooy bu fekkee gëm ngeen yàlla kon kéemtaan yi bu ngeen ko gisee day yokk seen gëm su fekkee gëm ngeen yàlla kon da ngeen a war a jàpp ci yàlla su fekkee gëm ngeen chaque jour loolu lañu yàlla di wax in kuntum muminin bu fekkee gëm ngeen yàlla yàlla rek moo leen di dimbali waaye nag chaque jour in kuntum muminin képp kuy gis kéemtaanu yàlla te doo waaru mooy gëmoo amoo imaan imaan nekk fa parce que imaan kéemtaanu yàlla daf koy yokk xoolal sunu borom bi muy wax ci kéemtaan lu mu wax inna fi xalqi samawati wal ard leen loo ne asamaan kéemtaan la suuf kéemtaan la waxtilaa fi leyli wan nahaar changé bi ñuy changé guddeeg bëccëg kéemtaan la wal fulki leti tajri fil bahr gaal bato bi ngay xool bato mu tegu ci kaw géej gi fan yi damay seetaan ay bato turki bato yoo xam ne ni ñu toll li ñuy yàpp ci ay conteneur la hawla wala quwata illa billah te te géej gi boo ci tegee birig birig xam ngeen birig ñu xam fi birig boo ci tegee birig nu muy def dootoo ko gisati batoog birig lu ëpp waaw lu tax birig di dig bato du dig allahu akbar wal fulki lati tajri fil bahr bima yanfa'u nnaas yàlla mu ne gaal bato bi daw ci géej gi pour jëriñ nit ñi maa ko téye maa ko téye bima yanfa'u nnaas lan la aaya bi teg ah wa ma anzala allahu min as-samaa'i min maa'in fa axraja bihi min ath-thamaraat ak mbir yi nga xam ne yàlla ngi koy wàcce ci asamaan yooyu yëpp yàlla mu ne kéemtaan la moo tax yonent alayhi salaam bu bu tëddoon guddi ba yeewu lu muy wax inna fi xalqi samawati wal ard waxtilaafi leyli wan nahaar li ko la ayatin li uli albaab allazina yazkuruna allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaru fi xalqi samawati wal ard lan la ñuy turbe subhanaka ma xalaqta haza baatilan waqina azaban nar subhanaka waqina azaban nar fekke kon ñun chaque jour ñu ngi gis asamaan ñoo ngi gis suuf ñoo ngi gis jant ñoo ngi gis weer ñoo ngi gis biddéew ñoo ngi gis ngelaw ñoo ngi gis géej ñoo ngi gis lu ne waaye duñu waaru kenn ci ñun dul waaru te yàlla nee na yooyu boo ko xoolee ba pare da ngaa war a waaru waroo cee may da ngaa war a xalaat waaw lu tax yàlla bind asamaan wa yatafakkaruun ñuy xalaat lan lañu xalaat lu tax yàlla bind asamaan xale boo leen laajee kan moo defar suuf si kan moo sàkk asamaan soo laajee xale ñu ne la yàlla la kan mooy boroom weer wi waa jardin boo leen woyal woy yooyu ñu ne la yàlla après lan la ñuy tontu après lan mooy résultat bi kon mooy ñun ay jaam lañ waruñu ko dendal waruñu ko bokkaale kenn yàlla yi ñu topp fii kan moo defar asamaan ah instant nga def ñu ne diw yàlla la ne ko ana asamaan bu mu defar ana suuf bu mu defar ana asamaanam ana suufam ana jantam ana weeram xam naa boo ko ne ana jaamam yi mu ne maa ngi nii waaw nit ñi egg nañ foo xamante ne ku ne diw yàlla la boo ko ne ana jaamam yi mu ne man maa ngi nii kenn ci jaam yi laa dégg naa ñu naan benn sëriñ mooy borom yow yaay borom jaam ñi waaw ay jàng yu mu amoon fii ci stade bi stade jom bi gars yi yëkkati oto bi naan borom jaam ñi ñëw na yëkkati oto bi di daw ak oto bi ki naan borom jaam ñi moo ñëw borom jaam ñi kay wax dëgg yàlla mooy yàlla wala nit ñu naan la yaay borom jaam ñi nit koo xamante ne fii ak ginnaaw suba rek léegi mu dee Yunus nee na kiñ naan yenn saa yi ñu jël kenn di ko jaay naan ko yaay borom jaari borom jaam ñi yàlla bàyyi ko ba mu tëdd guddi rek yàlla daal di yëngal bëñ bi oyi allah dindi na ñiire de oyi soo fini ko ni o waɗata tawima ko woni o wima allahu akbar mu ne yàlla day dëng day dë- day yëngal bëñ bi rek bu xëyee gomfale lex bi ah léegi lu ñu ko war a wax yàlla yàlla lu gomfale sa lex bi nee na dootul sax mun a wax nii lay def da lay joxoñ ay baaraam kon kay kii xam nga ne du yàlla gars yi yàlla mooy yàlla jaam ñi ay jaam lañ anzilu naasa manazilahum nit ñi nañ leen wàcce fi ñu war a yem ku nekk dafa am foo war a yem nañ la fa yemale ku baax nga dangaa baax jàng nga jàng nga sëriñ nga sëriñ nga waliyu nga waliyu nga yonent nga yonent nga waaye bu ñu la bëggee yéegal nag waaw comme seen théâtre boobu ngeen doon seetaan yow waliyu nga mu ne passé naa foofu yow shérif nga mu ne passé naa foofu yow muqaddam nga mu ne passé naa foofu yow yonent nga mu ne passé naa foofu yow malaaka nga mu ne passé naa foofu yow yàlla nga mu ne ñu ngi koy wax de dégg naa ñu koy wax de am na ñu koy wax de inna lillahi ñoo ko wax est-ce que bu ñu ko waxee rek dëgg la dafa am benn waay bu ne woon xam na xëyb mu ne moom xam na xëyb ñu boole ko ak sëriñ benn borom xam bu tudd albani bi mu ñëwee sëriñ bi ne ko waaw bismillah xam nga kumpa mu ne waaw mu ne nag commencé wax mu ne kon kay xamu mu ne waa nga ne nga naa commencé wax kon kay waroon nga xam li ma bëgg a wax nga xamoo dara di ko def wala dëgg wala waxul dëgg xam naa kumpa nga ne waxal lu may wax man kay kon li ma wax mu ne ko lu may wax mu ne ko di commencé mu ne ko déedéet yow koy xamoo dara man kay li ma bëggoon wax yow war nga ko xam comme xam nga ko science bi daal di tas gis nga ñu ñoo doon utiliser suñu xel rek ñun ñoo doon décider suñu xel rek xoolal waa ji ñëw ne la kaay ma ñaanal nga nekk milliardaire ñëwal ñëwal mu ñëwal ma ñaanal la waaw gars yi di rak ku nekk da ngay joxe 10 000 mu ñaanal la moom du ñaanal boppam dafa dëgg yàlla da ngay gis dama gis benn waaye muy jaay ci marché bi téere bay rek téere bi ku ko takk du ko takk du ko xaalis ma ne ko waaw yaa xëy noppi rek jarul takk rek keroog ci rajo rajo oto laa nekk ma dégg waa ji ñuy wax ni day faj day faj day faj day faj ba caag ñu ne day may wërsëg ma ne dafa takk ne ma la la ma ne dégg nga waa ji li mu wax ñu wax ne mun na ko mu ne lu ñu wax ma ne ñu ne day maye wërsëg ah gars yi de dañoo garaaw ma ne ko waaw léegi ki xoolee ban dëkk la jóge bu dee étranger la ba dëkk la Niger wala Nigeria ñëw Sénégal ne da leen maye wërsëg lu ñu ut fii xaalis lu tax toogul fële may boppam wërsëg yow kay bu fekkee am nga ñaan goo xam ne ku ko wax rek nekk milliardaire mënoo ko wax nga noppal nit ñi sama yaay dafa dugg ci super super bi dafa def benn virage rek taxaw di jël ay nit rek benn waay taxaw di yalwaan yë- def ni baaraamam baaraam bi daa dagg fii ku mu ko joxoon rek ne day baax rek nga joxe juróom nga dégg nit ñi naan waaw gis nga kii dafa demoon bay mooy tool yooyu ñuy woote ñoo leen ngeen bay damay bañ a tudd tool Kaolack xaaral ma wax Kaolack rek nañ ngeen ko jëm foofu wala ma ne géejawaay tool yooyu ñuy woote nañ ko bay géejawaay waa ji dem ci tool yooyu di bay to baaraam bi dagg léegi ñu ne baaraam bi ku mu ko joxoñ rek sëriñ bi moo ko ñaanal ku mu ko joxoñ ne day baax rek yow sa affaire baax na waaye ñëw taxaw ci virage bi oto super bu taxaw rek mu ne day baax nga joxe juróom day baax nga joxe juróom day baax nga joxe juróom mu joxoñ ko sama yaay mu ne ko day baax sama yaay mu ne ko baax na bu yàgg léegi nag xool nit ñi ne dañuy xuloog sama yaay non gis nga ma kii sama yaay ne leen hee man werantewu ma de day baax na ko joxoñ boppam mu baax mu may ma jàmm na ko joxoñ boppam rek mu baax est-ce que jar na yow bu fekkee da ngay joxoñ nit ñi sa sa affaire baax nga joxoñ nit ñi seen affaire baax yow nga ñëw taxaw ci naaj bu tàng bi di joxoñ nit ñi munoo dem toog ci sa biir néeg joxoñ sa bopp bu baax am nga loo xam ne boo ko wirdee nga nekk nit ñi nekk milliardaire te boo ko wirdi ko am nga loo xam ne boo ko sangoo nekk milliardaire nit ñi nekk milliardaire da nga koy joxe demal nga takk ko nga naan ko nga sang ko mais déedéet day gis dof yoo xam dañu ñëw di rayante waaw yow ah loolu mooy ñàkk xel dëgg-dëgg loolu mooy yow da ngaa takk sa xel ba mu dëgër ñëw takk fële utiliser woo sa xel xel lu mu jëriñ rajo yi ngeen di dégg yëpp gars yi di woote naan mën nañu mën nañu loolu ngay dégg ñuy wax waaw waa ji moom ñëw ndeysaan yow moom xaw ma kan de nga ñëw mu laaj la cent mille wala cinquante mille cinquante personnes kay boo leen laajee ku nekk cinquante mille yow moom baax na xaw ma kan la baaxul de mais yow dina baax yow waaw am nañ imaam boo xamante ne day faj yaaf xam ngeen yaaf ah yaaf fii lay nekk sa bakkan après deret mooy génn bu ñu ko bënnee deret bi mooy génn bu fekkee deret ji dafa lalu ci sa bakkan sa bopp bi mooy métti moo tax foog ñu bënn ko deret ji génn pour sa bopp bi féex xam nga imaam bi bu lay faj lu muy wax ñetti kilo yàpp waaw ñetti kilo yàpp yàpp nag ñetti kilo yàpp nag nga doog a joxe li ngay joxe waaye loo mënta joxe moom ñetti kilo yàpp yi moom day ñëw ba pare léegi nag boo paree nag bu fekkee da nga ci teg 1000 francs wala 2000 xanaa loolu mooy mburu bi ak pombiteer bi xanaa loolu mooy 2000 yi wala 1000 francs yi mooy pombiteer bi wala mburu bi ah boo amee ñetti kilo yàpp lu ci des waaw te chaque jour am ku ñëw bënn yàpp caaxaan rek comme nit ñi moom dañoo dañoo dañoo dof dañoo ne nax leen ñu xaar ma ñëw nga nax ma ah nga ñëw ñu nax la ah gis nga waaw nit ñi dañu dañu naxaate rek xam nga ndeysaan yal na yàlla defal jàmm daal nit ñi daal war nañu xoolaat seen bopp tey dëkk bi ni ñuy naxee nit ñi c'est trop te loolu yëpp lu ko waral mooy nit ñi ñoo bañ a xalaat rek nit ñi ñoo def seen bopp ay dof ñu leen di nax rek waaw di la nax luy ndey loolu benn waaye boo xam ne mënul dara yéen ñaar yéen a yem tus la mënul te bala nga doon xam mënul dara nga jàngaloo ko alxuraan amaana sax yow yaa ko raw nga ñëw nekk dof mu lay nax nga def sa bopp dof mu lay def loo loo xamante ne du ko def loo doomam benn waaye daf maa fekk may jàngale benn dars mu déglu dars ba dars bi jeex mu ne ma sëñ bi wallahi li nga doon wax dëgg man mii ci benn daayira laa bokkoon ci benn tarixa sëriñ bi woote bay mu ne ñun ñëpp ñu xëy dugg ci ay oto dem ñu bàyyi tool bi ba mu set gor bant yi gor ëkk yi ba affaire bi ne nas naaj bu tàng jër kenn lekkul kenn naanul mu ne ñu toog ba takkusaan rek sëñ bi ñëw mu ne ñu ñëpp ñu ñëw toog mu daal di ne tàllal leen loxo yi yéen ñëpp àjjana ngeen jëm mu ne bi mu waxee loolu ma xool mbooloo mi gisuma jabaru sëriñ bi te bëgg na àjjana gisuma doomam te bëgg na àjjana gisuma jarbaatam te bëgg na àjjana gisuma kenn ku ko jege lu dul ñun dof yi rek ma ni lii am nay naxaate bu dee dañuy foofu ku fa dem dem àjjana nit ñi di liggéey kan moo fa war a jiitu wala ñooñ bëgguñu ay wala ñooñ dañoo am àjjana ba pare mu ne ah, lii am na lu ci nekk lii naxaate la nee na keroog laa gëj a dem dëgg la liggéey yu métti yooyu yëpp sëñ bi du du jël jaasi du gor te xoolal yonent bi ba ñu liggéey jàkk ji yonent bi lu mu doon moo doon yenn birig yi jàkk ji ngeen di séentee ci Medina ngeen gis ñu ko def ay photo di ko won télé nit ñi di julli bañ koy tabax yonent bi moo doon yenu birig yi saxaaba yi di xaacu mu ne leen hee seydul qawmi xaadimuhum ñun suñu kilifa yi duñ liggéey wala amul ci carreleur amul maçon amul mécanicien amul uude amul amul amul amul même jàngale bi maam yi doon def sax ma ma sunu maam yu yu baax yooyu nga xam ne ñoo leen juróon nga xam ne ay daara lañ yoroon di jàngal nit ñi alquran di leen yar ci diine sax ñoom defatuñ ko waaw ñoom dañ daan def ndeysaan yor daara taalibe yi di di nekk ci tool yi nekk ci daara ji fekk nañ alaaji Maalik mu jàngale ba gumba ñu ne ko sëriñ bi gisatoo de te ngaa noppalu mu ne kon ma lekk riba ndax ñii may jàngal li ñuy bàyyi loolu lay dunde ñoom dañoo jàngale ba ba ah dañoo jàngale lépp seen diine seen àdduna wala ñun fii tey li ñu doon wax Moussa Gueye mu ne daara joo xamante ne amul daara joo amul daara daara joo xam ne ay fas rek jofe rek ay fas ak ay saret daara joo ñu fay jàng lu ñuy jàng daara joo amul daara école bu amul encre amul bic amul craie élève bu fa jàngee looy jàngee yàlla dafa sutura yal na yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp yàllaa ngi wax ba tey ci kéemtaan yi mu jox Isa mu ne wa musaddiqan man Isa damaa ñëw di dëggal lima lépp loo xam ne bay na ya day yi mu ma moo nekkoon sama kanam moo ma jiitu woon gis nga mina tawraat kon xam na ne tawraat moo ko njëkk a ñëw parce que Moussa moo ko njëkk a ñëw man Isa damaa ñëw weddiwuma tawraat de damaa ñëw di dëggal musaddiqan damaa ñëw di dëggal li ma bay na ya dayya lépp lu nekkoon ci sama kanam lépp lu ma jiitu woon mina tawraat ci tawraat waaye wa uhilla lakum damaa ñëw pour daganal leen baadu lazi xurrima aleykum lenn ci li yàlla araamaloon ci yéen moo tax yonent yi gis nga seen diine seen sharia benn la léeg-léeg nit ñi yàlla day araamal ci ñoom benn mbir beneen yonent bi ñëw daal di koy daganal ñun ñun démb moon ngaa takk sa rak nga bokk ak nit ndey ak baay nga takk ku mu nekk sa jabar wala loolu daganoon na démb ci ban sharia ci ban sharia sharia aadama est-ce que loolu dagan na tey suñu sariya ñun valable aadama danaan def ñaari doom la daan am mu amee ñaari doom góor ak jigéen mu amaat góor ak jigéen mu changante leen nit danaan takk jabaru baayam daganoon na moo da yàlla mu ne wa illa ma qad salaf lu dul lu jiitu léegi araam na kenn defati yooyu yëpp dafa daganoon démb nit ñi daan ko def ñuy araamal di araamal di araamal gis nga Isa bi mu ñëwee fekk na lu Moussa araamaloon ci banu Israël mu ne tey damaa ñëw pour daganal leen ko yàlla leen ko tere woon mais yéen tey ji man ñëw naa yàlla may na leen ko ngeen mun ngeen kaa def démb balaa islaam ñëw ku sa yére taxoon sobe nooy def da nga koy xotti kuppati ko lañ set ngay jël wala paaka kuppati ko tey ku sa la ku sa yére tax sobe da nga koy raxas da nga koy fóot wala nga raxas ko gis nga moo tax sharia yenn saa yi yonent yi ñëw diine ji nekk benn waaye sharia bi wuute mu ne wa dama ñëw pour lan wali uxilla lakum ngir ma daganal leen daganal leen leen ay mbir yi nga xam ne xurrima alaykum yàlla araamaloon na ko ci yéen mu ne huwa ma harrama allahu alayhim ala ahdi muusa li yàlla araamaloon ci ñoom ci jamonoy muusa min akli suhum ci lekk mbàq dañ ko aramaloon ci waa banu israil mbàq wa nahwiha ak lu mel noonu amma ma kaana muharraman aslan li darura fala yahillu lahum waaye li nga xam ne dafa araamoon ci ñoom déppi lu nekk cosaan loolu isa bu mu ñëwee daganul ko mais yenn yu nga xam ne reewande moo taxoon yàlla tere leen ko comme nappi samedi ñu araamal leen ko ne leen bu leen nappeeti samedi ndax reewande yu mel noonu isaa bi mu ñëwaatee mu ne leen fekk naa loo xam ne yàlla araamal noonu ko ci yéen tey ma ñëw pour yàlla daganal ko nee na loolu nag day nekk yenn saa yi yiw pour nit ñi waaw wa fi zalikum xayrun lakum fa aminu bi nee na kon loolu day nekk xéewal loolu sax nag war a jur ngeen gëm ma ndax bi ma ñëwee fekk naa lenn ci ay mbir lu yàlla tere woon ma ñëw yàlla daganal leen ko kon wax dëgg yàlla war ngeen maa gëm war maa topp mu ne wali uhilla lakum ngir ma daganal leen baada lenn allazi ci li nga xam ne xurrima aleykum yàlla araamaloon na ko ci yéen wa jitukum dikk naa ci yéen ba tey indil naa leen bi aayatin ci ay aaya min rabbikum yu bàyyee ko ci seen borom kon fattaqullaha ngallawaay ragal leen yàlla waati uuni ngeen topp ma gis nga ab yonent bu ñëw yàlla yónni ko mu ñëw indi ay kéemtaan yuy wane ne yàllaa ko yónni lan moo war nit ñi yonent yàlla Muhammad ñëw na ci gaa yi ñu ne ko yàllaa la yónni mu ne waaw ñu ne ko weer waa ngi ni boo ko xaree ñaar ñu topp la weer wi lañ ko wax de weer wi boo ko xaree ñaar ñu topp la mu daal di ñaan yàlla subhaanahu wa taala gaa yi gis weer wi xar ñaar benn daggit bi daal di wër montaalu montaanu jabalu abi qubays fekk yéeféeri daal di yóbbu fenn waa ji mooy njabarkat tëtëtëtët c'est le plus grave magicien du monde gis nga au lieu ñu gëm ñu ne njabarkat la walla ñu def Moussa tamit bi mu ñëwee ak Firawna ñu ne ko loolu nga indi mu ne yet mu sànni mu nekk jaan mu dugal loxo bi ci poqataan bi mu weex lan lañ wax lan la banu israil wax lu firaw na wax kii njabarkat la inna haazani la saahiraani yuridaani an yaxrujakuma min ardikuma fa maza taamuruun ñaar ñii de ay njabarkat lañ yu garaaw dañoo ñëw pour génne leen ci seen société bi seen suuf si dañoo ñëw pour récupérer suuf si lu ngeen di xaar loolu lañ tontu gars yi ne ko léegi xam nga nu ñuy def ñu ne ah ñu ne yónnee leen njabarkat yi ci biir dëkk bi dëkk bi yépp njabarkat yi fi nekk nan ñëw ñu daal di daje benn bis ñu xool ñoom Moussa ku dàq njabar ndeysaan Moussa ne leen lii du njabar way la kum musiba ñeel na leen bu leen fenal yàlla man duma njabarkat ñu ne ko dimbalinu yow mi yaay seefu njabarkat yi mu ñëw taxaw yow mu siina yor yatam gaa yi ne ko sànnil mu ne sànni leen ba pare ñu sànni seeni buum ak seeni yat yëf yi di wundeelu mel ne ay jaan mel ne ay élastique yu ñu laxas yàlla mu ne wa saxaru ayuni naas dañoo njabar batul nit ñi mais mbir yi nam meloon rek la mel amul changement Moussa daal di tiit fa awjasa fi nafsihi fa awjasa fi nafsihi la ilaha illallah fa awjasa fi nafsi xiifatan mu daal di yëg ci intérieur am ak ragal yàlla ne ko laa taxaf bul ragal bul tiit innani maakuma asma'u wa ara maa ngi ànd ak yéen maa ngi gis maa ngi dégg bul tiit de ndax yonent du ragal ci man Moussa taxaw mu sànni yat bi yàlla lan laay def yàlla mu ne ko waa alqi maa fi yaminak sànni li nekk sa loxo ndeyjoor Moussa sànni rek yëf yi ngaam daal di wan njabarkat yi li ñu indi mu song tribune Firawna ngaam wan genn wàllu nit song tribune cumbur cumbur yi seetaankat yi wan genn wàll gi mu mu song Firawna daal di ngaam benn ngaam bi nekk ci gazon yi stade bi beneen ngaam bi tiim tribune bi gaa yi ne Moussa teel sa teel sa lii téye ko ñu gëm Moussa daa téye yat bi daal di koy tàllal mu nekkaat yat mu samp ko taxaw ne lu ngeen wax njabarkat yi daal di roj daan ne amanna bi rabbi Moussa wa Haroun daan na leen a di ngeen koy gëm te joxuma leen digal innahu la kabirukum allazi allamakum sihra kii mooy seen sëriñ bi leen jàngal njabar dafa am lu mu leen jàngal am lu mu leen nëbb yaay ne ko déedéet ñun dañoo gis kii ñu xam ne lii du njabar parce que ñoom xam nañ njabar waaw ndeysaan yal na yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp yal na yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori mu ne leen wa jitukum indil naa leen bi aayatin ci ay kéemtaan yu leer naññ yuy wane ne man yonent laa yàllaa ma yónni fan laa ko jële min rabbikum ci seen boroom dellu siwaat na ci aaya bi fattaqullaha ragal leen yàlla kon waati uuni ngeen topp ma lu tax ndax mbir mi leer na wan naa leen lii lépp lu fi des ah déedéet nit ñi nit ñi dina loolu de da ngay wax ba sonn wane bépp kéemtaan indi benn dalil bu ne xoolal fii dañuy waaraate leeral wax ba sonn bu julli jotee bu ñu kàbbari nga gis gars yi def irsaal seen loxo yi wala nga gis lam lam yi continué nekk ci loxo yi wala nga gis seen yi continué nekk ci loxo yi gars yi commencé ak tube yi nga gis ñu nodd nga gis kuy def tube yaa ko yéeg bu rukkoo wee tube yaa bu siggee rukkoo yéegalaat bu sujjóotee yaa ko wàccaat bu taxawee mu yéegalaat ba kañ waaye li ñu doon wax leer na wax nañ la loolu baaxul mais lu tax tube yi bokk moom la yonent doon wax rek waaraate indi ay jumtaan leeral ba dafa nit ñi dégg nit ñi du dégg xoolal lii leen Isaa wax indi naa leen ay lay yu leer yu ne wér ci wane ne man yonent laa yàllaa ma yónni kon ngàllawaay ragal leen yàlla ngeen topp ma mukk fattaqullaha ragal leen yàlla waati wu ni ngeen topp ma maa leen di yëgal nii inna allaha naka yàlla rabbi mooy sama borom xanaa lii mooy wane ne du yàlla bu doon yàlla yàlla baayam lu muy wax inna allaha naka yàlla abi waaye lan la wax rabbi yàllaay sama borom waaye wa rabbukum yàllaay seen borom yéen ñii kon lu ñuy def jaamu leen ma man déedéet bal mu ne faabuduuhu na ngeen ko jaamu moom yàlla moom kii kay li mu wax leer na yàlla sama borom mooy seen borom moom ba tey waxul nit ñi ne jaamu leen ma pourtant wane na wane na kéemtaan loo wane ne luy wane ne war nañ koo jaamu wala wane wu ko ku sa papa deewoon mu ne la boo buggee ma dekkil ko de dag may toog mère bi doomam deewoon mu dekkil ko xaritam bu deewoon mu dekkil ko nappkat yi mu ñaanaloon seen gaal gi fu ñu dem di fees ak ñeneen ñi di gumba mu leen di xoolloo ñooñu bu leen ne woon maa yàlla lu ñuy wax dañ koy toppal duñ ko topp ah fii ñun fii ñun Sénégal ñu ne ñi ñuy topp naan leen ay yàlla ngeen lu ñu def ñooñu Isaa li mu def sax defuñu ko wala kan ci ñoom moo dekkil ku dee wax leen ma turam kan ci ñoom moo tibb ci suuf si dank ko sànni ko mu nekk picc buy naaw ñoom kay da nga leen a fekk nga toog ñu toog rek leen leen yow yàlla nga waaye ñoom defuñ dara luy wan ne ñoom ñi yàlla lañ defuñu Isaa nag moom dafa wane ay kéemtaan yoo xam ne dëgg-dëgg moom ci boppam munoon naa waru ne man yàlla laa waaye xoolal lan la wax inna allaha naka yàlla ñu ne ah mu ne rabbi mooy sama borom yemul foofu de nit ñi sax bu yemoon foofu sax nit ñi kon na waaw waaw yow yàllaay sa borom waaye ñun yow yaay sunu borom mu ne leen déedéet wa rabbukum mooy seen borom yéen ñi yéen it man ak yéen yépp nañu ànd def lan faabudu jaamu ko kii kay leeral na lii nag mooy tawxiid tawxiid mooy boroom xam-xam ku mu mën a doon yonent waliyu nga koo mën a doon lan moo la war mooy bu la yàlla mayee xam-xam yàlla may la hikma mooy boo boo woowee nit ñi nga yóbbu leen soo woowee nit ñi ñu ñëw waa nii waaye nga woo nit ñi ñëw nga leen waaw fii la maa ngi kenn buuse ñëw leen loolu loolu du diine yonent bi dane wa man ahsanu qawlan alquran moo ko wax wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allah wa amila saalihan wa qaala innani muslimin kenn gën ta rafeti wax ki ne yàlla mooy sunu boroom nga woo nit ñi jëm leen ci yàlla bi nit ñi ñëwee nga ànd ak nit ñi jëm ca yàlla waaye nga woo jaam yàlla yi bañ ñëw nga leen di jéem a nax di leen détourné di leen wan sa bopp ah ba ku la gis di mbëkk ay pot làmp ñiy tàqalikook seen sago ñi bàyyi seen ndey yi bàyyi seen yaay yi topp la mel ne ay dof du ñu sangu du ñu solu du ñu sol dàll di dof doflu du ñu takk jabar amuñu benn responsabilité ci société bi loolu di delloo société bi ginnaaw loolu du benn du diine ku ne diine la da ngay nax sa bopp boo ci dee safara nga jëm diine lislaam diine lislaam lu set wicc la indi lu leer nag ñëwul pour nit ñi nekk jaamu nit ñi waaye dafa ñëw pour nit ñi nekk jaamu yàlla islaam dafa ñëw pour ñépp jaam lañ kenn dong mooy yàlla mooy yàlla subhanahu wa taala waaye ngeen ñëw ñi nekk ay jaam ñi nekk ay yàlla ci kaw nit ñi yàlla nekk yàlla loolu du diine yow yaay yàlla nga ne man duma yàlla diw mooy yàlla bu ma ko waxati ñoo ñaar kay benn lañ rek yow yaa kooku benn ngeen mu ne nee naa la man bu ma ne yàlla laa nee naa la bu ma ne yàlla laa diw mooy yàlla xoolal loolu nga wax turu kooku ne kooku mooy yàlla kooku anamu ana kooku wala wala li ma doon wax gis nga kenn du tontu kooku ñu ne woon yàlla la anamu yàlla dina dee waaw kon jaayaate baa ngo isa nag moom waxul woon loolu waaw dane inna allaha naka yàlla rabbi ah mooy sama borom wa rabbakum mooy seen borom faabuduuhu na ngeen ko jaamu yemu ci loolu de mu ne haada lii ma leen wax mooy lan yàlla yàlla mooy sama borom mooy seen borom haada lii siraatul mustaqim mooy yoon bu jub bi kon ku ci jaarul ci loo jaar ku jaar ci Samba yàlla la Moodu yàlla la Ibra yàlla la Paate yàlla la Ngañ yàlla la Kumba yàlla la Xadi yàlla la kon ñaata yàlla ñoo am yow yàlla nga man yàlla la ñii ay yàlla lañ kon ñaata yàlla moom soo leen ne noonu loolu ne ko ñu ne laa kay yàlla dane laa ilaha illa allah ñu ne waaw loolu mooy lan nga ni amul lenn lu dul yàlla kon loo gis yàlla la wala loolu lañ koy firee xam nga comme ñun jànguñu ñu ne la laa ilaha illa allah nga ni waaw ñu ne la dara amul lu dul yàlla d'accord nga ni waaw ñu ne waaw kon loo gis yàlla la micro bi yàlla la yow yàlla nga sijaada bi yàlla la jàkka ji yàlla la bunt yi yàlla lañ montre bi yàlla la ventilateur bi yàlla la gis nga nga ni est-ce que nga ñibbi seen kër papa mu ne nga ne ko man yàlla laa yow yàlla nga yaay yàlla nga yàlla yaa ngi bëgg a bëri bi Isaa waxul woon loolu de te Isaa yàlla mayoon na ko ci martaba lu mu dévier nit ñi wan leen ne moom mooy yàlla wala yàlla may ko woon loolu yàlla defaloon na ko ci martaba ak xam-xam ak xereñ ci mu mën a naxe nit ñi ne leen man yàlla la waaye terewul loolu yëpp mu ne leen yàlla mooy sama boroom mooy seen boroom nañ ko jaamu haza lii siraatun mooy yoon mustaqim bu jub xocc bu dëng-dëng amul ku narul jàdd rek jaaral ci yoon wi waaye amaa ku bëgg a jàdd du jaar ci siraatal mustaqim yéen ñi yéen ñi nekk ci jumaa ji baat bii di siraatal mustaqim ñaata yoon ngeen koy wax par jour ah 17 fois par jour wala yoon bi yoon bi yoon bi Isa ñaan yàlla jaar ne ne ne ne ñi mu doon waar nañ ci jaar ñun yoon boobu bis bu nekk ñu taxaw ci yàlla 17 fois di ñaan yàlla pour jaar ci yoon bi te mënuñu cee jaar ñaata yoon la ñuy wax ihdina siraatal mustaqim yàlla yal nañ ma jubal ci yoon boobu xoolal ndeke Muhammad yoon boobu la indi Isa yoon boobu la indi nee na yoon bi mu yoon bi jubbi kon ana yu beneen yoon ana beneen yoon kon yonent alayhi salaatu salaam dafa jël benn bant rëdd ne wa anna haza siraati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili yoon bu jub baa ngi nii de bu leen jaar ci yeneen yoon yi ñun ñu bàyyi yoon bu jub bi jaar ci yoonu tëng yi ku nekk jaar ci sa yoonu sàmba ñi jaar ci yoonu muudu ñi jaar ci yoonu yoonu ñi jaar ci yoonu ñi jaar ci yoonu moo tax suñu diine bi wuute moo tax ñu nekk ci lislaam bu wuute Sénégal lislaam bi nuróowul ba ci mbax na yi sax nuróowul mbax na yi laa ilaha illallah bi sax nuróowul d'accord ngeen wala d'accordu leen bu ngeen d'accordu rek ma ma dem man maa fii yox yox yi laa ilaha illallah bi sax nuróowul Sénégal hëy la hëy la ñoo ñaan la waaw ku nekk ak sa laa ilaha illallah ku nekk ak sa laa ilaha illallah Sénégal loolu day diine laa ilaha illallah benn kese la mais ku nekk ut noo koy tëggee allah xoolal ñoo ñaan la ñoo ñaan la ñoo ñaan la façon ku nekk ak sa bos ku nekk ak sa bos kenn nuróowul Sénégal laa ilaha illallah du diine laa ilaha illallah bi yàlla indi woon mu wàcc màkk moom war nekk fépp ci àdduna bi bu ñuy nodd màkk la ñuy wax ashhadu an laa ilaha illallah bu ñuy nodd Sénégal moom la mero wallahi maa mos a gis benn jàkk boo xam ne benn waaye dafa ñëw rek jël micro bi allahu akbar allahu akbar waaye di aaral nag ashhadu an laa ilaaha illallah limaam bi taxaw di ko xaar rek ba mu pare nag yéen mu ne ko eh sa affaire màkk yi amu fi bu fi noddati dégg nga li ma la wax ku la jox micro bi wéy ngay aaral di màkka màkkal ñu nekk ñu màkka ah ndeysaan waa ji daal di toog ndeysaan keneen jóg allahu akbar allahu akbar xamul seen nodd yi la la ñu ne lii lañ xam wala lii lañ xam kay xamuñu li yow xal yow yaa xëy du yàlla ñu yàlla won neen sëgal ñu sori ko sa nee na haza lii siraatun mustaqim mooy yoon bu jub wallahi yoon bu jub bu mooy diine bu leer bu amul benn taq-taq amul benn jaar leen nii def leen lii sàmba ci la bokk moodu di lii mooy siraatal mustaqim mbokk yi lii mooy darsu tey yal na yàlla def ñun dégg ak topp asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu